agression yi moom ñaawlu nañ ko torop mais d'un côté tamit nguur gi am nañ ci responsabilité parce que bu fekkee dañ ne pays islamique lañ nekk dañ war a def charia bu doon ko rey ñu rey la rek après day jeex ñu bàyyi ñu kon noonu ba tey jeex na bu yàgg ah waa loolu de moom wax dëgg yàlla doy na waar war nañu ci dimbali torop torop torop parce que jigéen ñi sonn nañ tàyyi nañ surtout jigéen ñi agression bi moom jigéen ñi lañ ci gën a gën a gën a gën a sonal ku ñu ci dimbali jël dañuy xëy di daani suñu deewal doole di yeewu 4 heures du matin xam nga dëkk bi amul benn sécurité say doom bu ñu xëyee di jàngi da am problème doo xam nooy def ah sa fit bu du daal ba ba ngay ba ba ngay euh, ngoon jot daal sa fit bi du daal tant que gisoo sa waa kër yow doo nekk ci jàmm ku ñu ci dimbali nag ñu jël. waaw loolu nga wax noonu am na affaire yi moom bari na lool wax dafa yàlla ba bi si mujj rek muy démb rek. gis nañ ci ñaar boo xamante ni boo xamante ni koo xamante ni euh, ñu ngi ko rayee euh, Nestlé ak boo xamante ni tamit dafa rey papam moo xam mu nekk loo xam ni nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax baax wax dafa yàlla ndaxte euh, nekkuñu woon réew moomu quoi bu defoon àtte lislaam ku rey nit ñu rey la kon defe naa ne lii lépp dina wàññeeku ñun ñun ñun ñun ñun citoyen li ñuy ñaan Macky Sall mooy mu àtte àtte lislaam maanaam yàlla kenn ëpp ko yërmande te moo ne ku rey nit nan la rey ku sàcc ñu dagg solo kon man pour man loolu li koy dindi mooy maanaam ñu ñu ñu fexe ate ate lislaam ku rey nit ñu rey la ku sàcc ñu ñu ñu jàppal dagg sa loxo loolu suñ ko defoon xëy na lii lépp dina wàññeeku mais ku ku ku rey nit ñu tëj la si prison yi di la jox ngay lekk kanaan ah pour man da leen da yokk doole rek man sama xalaat la ñu war a def mooy ate ate lislaam ndaxte suñu borom kenn ëpp ko yërmande. mais dañuy day nit day rey nit cinq minutes après nga gis ñu ne utal ko ay kayitu dof génnee ko moo tax rey léegi nekkatu fi dara ñuy rey nit ñi comme ay démb rek am na ko ñu rey ka caaroy rey ko ba pare dugalaat ko seen kër. dëkk bi boo mais boo xoolee musulman yi ñu ëpp ñu ëpp chrétien yi ndax. jullit yi fi nekk ñu ëpp ñu ëpp chrétiens yi te boo xoolee ñi ëpp ñi ñi ñi agressé ay musulman lañ boo xoolee boo xoolee tey boo defoon chantage nga xool ñi nga xamante ni ñëpp dañuy agressé ay bandi lañ ñooñu boo xoolee ay musulman lañ te te waaw man man man loolu laa gis ci man loolu laa gis tey boo xoolee ñu koy def ñu si ëpp ay musulman lañ te ñooñu nga teg leen nga daan leen daanu lislaam day day doon lu war bu nu sàccee nga ñu ñu ñu ray leen ñu ñu dagg seen loxo bu nu rayee nit ñu rey leen ndax képp koo xamante ni bu la leer na yow boo rayee nit tey tey ñu rey la tey du yow doo rey kum leer na tey jii man su ma leeroon tey jii man su ma reyee nit tey ci mbedd mi du ma yendu dañ may woo dañ may woo léegi woo public bi yëpp ñu ray ma mais fekk yow boo jàppee ne buñ la reyee dañ lay bàyyi après am na ñu muy demee sax du la jàpp ndax am ñoo ci dañ leen dañuy rey nit du jàpp wala waaw waaw waaw noonu noonu lay demee ndax danaan buñ bu buñ ma tëjee tamit garaawul maa ngi si prison bi di lekk ka naan yaa ngi dégg yaa ngi def li nga war a def yëpp daanaka yow li lay li lay nit ñi mooy li ngay génn dox say soxla mais prison boo ci nekkee di nga lekk di nga naan di nga ndékki di nga di nga di nga dem toilette di nga sangu di nga feebar di nga faju kon donc li nga wuteeg ñun mooy euh, génn bi ñuy génn liberté bi ñuy am nii rek di génn dox suñuy soxla waaw loolu ngay wuteeg waa loi boobu moom wax dëgg yàlla ku dégg ñu naan ku ray nit bu ñu la rey daa fekk rayaluñ la bis bu ñu la rayalee wala ñu ray sa doom wala ku la jege wala sa papa di nga nañ ko appliqué yaakaar naa bu fekkoon kenn ni dafa ray nit ñu rey ko kon kenn dootu ko defati ci àdduna parce que dee neexul nag ci ñëpp la metti te fi mu toll nii dee moom fi mu ne dafa banaal lu neex def dëkk bi amul loi lu neex def boo génnee boo guddee tuuti sax sa fit bi dootul daal say fitu mbokk duñu daal kuñ ci dimbale daal ñu jël merci beaucoup yàlla rayatul nit ñun te loolu warul bakkan dafa foor tey jii ki am doomam walla mu am jur baay am baayam wala yaayam yaay dafa neex wala bàyyi nga ñëw ray yaayi jàmbur wala nga ñëw ray bàyyi jàmbur ah ba pourquoi nga dem tëdd nga dem tëdd prison léegi ñooñ nga bàyyi leen ak naqar bu metti boobu loolu moo warul man loolu loolu moo moo dul yoon doo merci merci man dee yàlla ñepp xam na li lii ci yalla la jóge mais amna day yo xam ne da xam ne ci doom adam la jóge nit moy dox gis nit agressé ko sacc jël euh, nit jël nit rendé ko barki démb dégg nañ bo xam koo xamante ni dañ ko rendi fam bi dafa genn rek di dem di kërëm di wut ay lu mu ak yoy dañ ko jër rendi ko jël bob ba sànni ba waa état de droit mais nañ def droit aussi nañ def li yon wax d'accord mais tamit nañ def li nga xam ne l'islam comme pays charia charia li mu wax ku rey ñu rey la ku sàcc ñu dagg sa loxo buñ ko doon def konoon kon jeex na bu yàgg je pense bien. kër lañu gën ndax boo xoolee ndaw seen rey démb euh, côté euh, Sibsi euh, femme bi dañ koo woo téléphone da femme bi boo déggee yaayam nee na moom saay bu wàccaan da daan toog këram amoon na doom mais doom bi bu ñëwee bu ko tëralee day ñëw toog ci kër gi di waxtaan ak waa kër gi ba heure tëdd jot mu dem tëdd mais dañ ko woo téléphone mu génn nga xam ne loolu dañ koo programmé ba pare jam ko ay ay jam-jam yoxam xam ci ne ëpp na 60 jam loolu dafa ñaaw nga yow nit sax nit nit xanaa xar sax xar boo ko dee rey da ne la na paaka bi na paaka bi ñaw pour méthode bi méthode bi bañ a bañ a métti nga rendi mu jeex mais tey nit du ko jëm ay 60 nangam jam xaw ma 80 jam mais loolu dafa yéeme kooku bu ñu ko jàppee dañ ko war a rey. kooku man buñ ko jàppee dañ ko war a téye jam ko jam ko jam képp ku rey nan la rey ku sàcc ñu dagg sa loxo kon ndax